mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax ci ni ngeen àndeek ak ñun ci solution info TV alxamis ju ne ñu dellusiwaat fa seen ànd ak yéen ci seen émission 30 minutes chrono 30 minutes chrono tey jii ñu fas yéene ñëw waxtaane élection yi ñu weesu ak jàngat yi ñu ciy def parce que jàngat yi bari na. waaye dinañ ci indi sunu wàll ci émission trente minutes crono di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye Diallo ñoo nekk ci régie bi Omar Bun Khattab Gueye ci kàddu gi ginnaaw élection yi li ñuy njëkk a def mooy féliciter état bu Sénégal bu nee féliciter état bu Sénégal danaan félicité le ministre de l'intérieur bu nee féliciter le ministre de l'intérieur dañuy félicité direction des élections parce que lu tax ñu leen di mooy fi ñu jóge ak fi ñu jëm ak fi ñu egg tey parce que fi ñu jóge mooy lu umpul kenn mooy élection yoo xam ne dañ doon tànn kii bokk ku dul bokk élection yoo xam ne ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ñu gis sunu administration niñ ñu ko politiser woon de deux mille dix neuf à deux mille vingt quatre élection deux mille dix neuf yi xam ngeen nu mu demee xëccoo bi ci direction des élections ak yenn candidats yoo xam ne da leen a seppi woon dindi leen buñ ñu jugee ci loolu ñëw ci deux mille 22 législative ak locale ñu gis ay préfet yu doon politique dem ba ñu gis ay préfet yu Antoine Diome waxoon ni wala sous-préfet def leen ay appel contre opposition bu Sénégal maanaam ñu utiliser une administration politiser ko de telle sorte que administration bi sax da doon politique maanaam di opposer opposition bi loolu gis nañ ko fi ci élection locale 2022 parce que bëggoon nañu écarter ay liste boo xoolee bari na ci ay liste yu opposition bi yu bari ci jamono boobu dañ ko invalider ñu ñëw ci élection législative jaaroon na fi ñu gis ay liste suppléant yi jàkkaarloo ay liste titulaire xaaj ay liste tête de liste yi ñu dindi leen ñàkk bokk Ousmane Sonko yooyu yëpp dañ ko fi gis même avant loolu en 2019 gis nañ les cartes d'identité numérisées ak li jëm ci carte électeurs yi ni ko doon joxe maanaam nga gis ku am carte électeur mais nga dem ku am carte d'identité mais amul carte électeur doo comprendre lan moo xew réellement ñu gis aussi élection 2017 wala 2019 bu mu juumul ñu dem ba ci biir bisu élection yi ñu changé mode élection bi maanaam naan ñii dañuy voté passeport ñii dañuy voté permis ñii dañuy voté lii alingu Ngouille boobu moo nekk le ministre de l'intérieur maanaam yooyu yu fi jaar la. yoo xam ne dañ ko dund ak nguuru Macky Sall ci élection ci côté organisation bu bon doo comprendre maa ngi fàttaliku mille dix 2017 ñu ne taxawu dakaar bu xalifa Sall moo gagné ñu dem ba deux heures du matin trois heures du matin Abdoulaye Diouf Sarr génn wala Amadou Ba Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp génnoon jox ay chiffres yoo xam ne bokkul te pourtant ñun bi ñuy tëdd li ñu jàppoon mooy les première temps ndax taxawu moo gagné woon opposition bi mais ñu xëy rek ñu changé lépp une journaux yi soppeeku maanaam foofu lañ jugee ñun ci organisation élection fichier boo xam ne doo comprendre boo demee fu mel na podoor ñi daan voté ñooy ëpp maanaam population Podor ak ñi voté ñoo maase nga gis ay xale ñu leen di loo jox leen carte doo comprendre ñu gis ñoo xam ne dun ay sénégalais doon wote yooyu lu jar a fàttaliku la loolu tax ñi ñu félicité leen day am solo parce que fi ñu jugee moo tax même ba ci élection 2024 yi ne ni CP Sonko nga gis ay ñoom Rose Wardini Karim Wade di avait tellement de bruit dem ba nu war a reporter ay élection conseil constitutionnel Macky Sall ak waa PDS yi ànd jiiñ leen ñu dem toog ci assemblée nationale di leen jiñ corruption ne Amadou Ba moo ko def pourtant yooyu yëpp ci yu nu jaar la parce que man damay dégg dafay am koo xam ne daf may inspiré à chaque fois te dafa bokk ci ñi ma gën a naw ci réew mi su côté analyse mooy Babacar Justin Ndiaye. day wax naan réew pour nga mën a analyser politique mën ci waxtaan il faut nga am xam histoire am looloo tax dañuy am habitude bu nuy def chronique wala daal ñi fàttali li fi jaaroon pour ñu mën a parce que boo mënul euh, euh, xool li ci li weesu doo mën a analyser li xew tey mënoon naan wax ni rek le ministre de l'intérieur direction des générale des élections état du Sénégal mu maanaam jaruñu félicité parce que liggéey la def mais fi ñu jugee moo tax ñu leen di félicité gis nañ fi sànq ñi ngi may wan Macky Sall mais gis nañ fi jamonoy lay taq ndeer ñu dem élection législative ñu gis en président de la république Abdoulaye Wade ñu bëggoon ko def tête de mënul ne ñu jël taq ndeeram def ci ay liste yooyu dafa jaar ci Sénégal daf fi jaar Macky Sall bu ñu doon wàcc élection mu def conseil des ministres décentralisé wala tournée éco économique parce que pour faire sa mais bii gis nañ un président de la république Diomaye taxaw na lay dem ba Sonko maire na ministre de l'intérieur ministre de la justice présidence de la république li ñu waroon def defuñu ko maanaam pour wane ni rek dafa am benn changement bu am léegi en huit mois ak fi ñu jógee ci présidentielle ñu mën fi tëgg ay élections yi mel nii amul contestation bi tax ñuy wax ñi war a wote wote nan gisoo fi transfert d'électeurs assas de conscience yi même yaa ngi koy doon dégg am na mais bariwul deful différence ci élection yi maanaam peuple bi moo exprimé wu te lool pour mu am il faut que mu am une bonne organisation ci élection yi te bon organisation boobu état du Sénégal moo ko def gisuñu candidat bi waroon bokk ñu ne bokkul tëdd si bi nii la demee wala ne non non y avait te ci biir huit mois nga mën a organiser élection matériel électoral bi dara manqué wul ñu dem ba ngoon les premières tendances am lu mu am opposition bi félicité loolu mooy Sénégal bi ñu xamoon parce que bi ñu def code consensuel en 92 loolu la ci Abdou Diouf jublu woon boo xoolee 92 ba 2000 peut-être ba amoon na en 2016 1996 ay coow mais. élection jaaroon na yoon ONEL jaar fi FRTE yu bëri jaar fi Sénégal ba 2012 lépp normal mais bi Macky ñëwee bi muy ut deuxième mandat après da ngay gis lu kenn lu kenn xamul même référendum 2016 bi ñu koy def dañ ko jàppoon le 20 mai le 20 mai Macky Sall woo ci opposition ba ñëpp di waaj mu bett leen ne le 20 mars la boo xoolee 2016 Macky dafa bett gars yi maanaam y avait pas de sérieux ci ni ñu doon defee élection ci Sénégal mooy benn président moo fi ne bëgg a falu léegi nu mu mën a def tous les moyens sont bons pour moom mu falu lii ay fela yu fi jaar looloo tax bu nu jugee ci loolu ñëw ci élection bu njëkk ñi réussir ko da leen di félicité parce que élection anticipée la wàccaay bi desoon na gaawantu am na ci parce que il fale ko ñu def ko pour mën a am assemblée bu bees assemblée bu bees mën a am budget bu bees y avait de trucs yu mën a jàll loolu nag bu ñu félicité le ministre l' intérieur ak direction générale des élections ci taxawaay bi ak waxtu wi ñu ko defee ak urgence ci nekk ci réew mi loolu tax ma ne régime bi bari na ñu leen di ŋàññi mais boo analyser doo leen ŋàññi parce que nga ñëw bëree tabaski ñëw sa kanam bi tabaski kenn waxul organisation bu bon nga ñëw màggal gàmmu y avait tellement de trucs malgré les sabotages yi amoon ñenn ñi di ko def di leen bëgg a booleeg peuple bi. li gi campagne jëm campagne arachidière bi ci wàllu mbay mi bor yi ñu fi fekk ak contrat yi ñu fi fekk ak li jëm ci wàllu pêche bi yu bëri nga gis ni ba ci élection yi nii mu doon doonoon enjeu pour le ministre de l' intérieur enjeu pour le ministre de l' intérieur demoon nan ban na sax bulletins yi nan ko wàññi parce que 41 liste aussi du yoon bulletins yi nan ko wàññi def ko petit format format naam format yi ndaw yi pour que sax ñu mën a économiser 8 milliards mais opposition bi bañ. mais malgré sax li opposition bi bëgg ministre de l'intérieur da leen ci fekkoon maanaam da leen fekk si tey li fi jaaroon bu njëkk mooy le ministre de l'intérieur ja surtout jamonoy Antoine Diome da doon fara far ba nga xam ni kii moom nekkatul ci logique élection nga gis caisse de dépôt consignation mu yoonam ci élection moom banque la bi recevoir xaalis mais dem na ba ay quittance ak ay li yoonam nekku ci pour mun a bloquer dañ doon utiliser sax caisse de dépôt pour mu mën di bloquer ay candidats ci nguuru Sall. loolu tax bu ñu amee élection yu mel ni ñu dem ba ngoon ñu ne taux de participation bi peut-être cinquante pour cent wala lu ko jege loolu lu ñuy féliciter la parce que ci benn at nga organiser ñaari élection yombul jamono juñ ko mësaan a def taux de participation bi du egg quarante pour cent taux de participation bi du egg quarante pour cent te loolu li koy dëggal mooy en deux mille 36 virgule la woon pour cent 36 eggul sa 40 2001 non non je ne parle pas te 2012 mooy bi Macky waaj waaja falu 36 pour cent la loolu ñu bëri bàyyiwuñ ci xel parce que benn benn élection ci benn année organisation bi anticipation ele anticipation élection yi yooyu yëpp da ciy joué ak moyens yi ñu ci war a def parce que boo jotee junguur benn doo am xaalis ci essence su jàmbur ngay dawee maanaam budget bi nga fi fekkee moom ngay dawee. askan wi dañuy toqi ñëpp ci seen xel ak seen bopp di naan nguur gi fi ne ak nu mu mën a def day am majorité am na ñoo xam ne du leen ko jaral pour ñu dem di wote ji par da naan les des sont déjà jetés looloo tax bu ñu jugee ci 36 pour cent en 2012 en 2024 ñu am 50 pour cent loolu taux de participation bu baax la bu acceptable la mais bu anora maanaam bu honorable la loolu déjà ngi ciy félicité les acteurs politiques mais askan wi xam élection bi enjeu bi mu amoon léegi nag lu tax Sonko ak Diomaye gagné élection yi loolu il faut ñu def ci jàngat ginnaaw ba Diomaye féliciter Pastef ak Sonko parce que kenn du gis pee bi naan larabee gaaw parce que ki ñuy féliciter mooy ki gañe ki ñàkk dañ ko war a encouragé naka beneen yoon nga góorgóorlu te jomaay pour ko am war a félicité malgré que élection bi yoonam nekku ci mais élection bi moom lañ ko doon defal ah, mos naa ko wax tàkku si man leen élection bi bu ci ndam amee moo koy jariñoo parce que c'est le président de la république moom moo yor ay loi moom moo bëgg a doxal réew mi te réew mi amoon opposition bu taxaw ne dañ koy bloqué ci ay loi yu mu bëggoon jàllale noonu Abdou Mbow motion de censure ak yeneen ak yeneen ba ci budget bii nii buñ sañoon kenn du ko wote pour que gars yi bañ a dérouler kon tey buñ jëlee presque lu toll ci 60 pour cent wala plus de 60 pour cent suffrage yi jox ko ko te loolu bariwul li muy am Sénégal ci résultat provisoire lu toll ci téeméer ak fanweer ci ay député nga mën ko té en tant que président de la république day tax li nga bëggoon def te mënoo ko nga commencé léegi di ko def kon mun nañ wax ni mbir yi 2025 lay tàmbali ak jomaay parce que 2024 bi li fi xew ak niñ jotee réew mi ak taxawaayu opposition bi yombul woon seen i mbir mais heureusement suñu borom defal na leen sutura ban mën a egg ci li ñu egg léegi damay ñëw ci force bi tax Ousmane Sonko gagné élection yi ak ban erreur la opposition bi def ba amuñu ci lu bari benn élection bi. maa ngi koy wax sama chronique bu passé mooy Sonko en jeu maanaam jeu bi Sonko joué ak gars yi mooy Sonko lim njëkk a réussir mooy dafa jox enjeu élection yi parce que élection législative Sénégal daawul am enjeu mais enjeu boobu mu jox élection yi mooy benn balaa élection yi li jëm ci. réew mi nin ko war a yoree ci wàllu koom-koom ñu woote ci waxtaan wu rëy waxtaan woowu ci ci pôle yi ñu war a développer ci réew mi waxtaan woowu mu ne nag lii mooy li fi ñu bëgg a jëme réew mi fii ak deux mille cinquante waaye ngir ñu egg fa il faut que ñu am majorité kon léegi enjeu bi mooy ginnaaw deux mille vingt quatre mars ñu jox leen réew mi enjeu bi mooy ñu joxaat leen ay député majorité assemblée nationale ngir que lii ñu naal pour réew mi li taxoon ñu falalu leen ñu mën ko doxe loolu day tax peuple bi sawar ci parce que bu dul woon référentiel bi ñu teg ñëw rek na nañuy dem ci élection nit ñi dañ naan mais gars yi ana seen projet bi waaye ñi bu leen wotee fan la ñu jëmee que nit ñi aussi bu lay gunge dañuy xam fan nga jëm mais Sonko balaa élection yi daf wax nit ñi fan lañ jëm. looloo tax mooy le seul candidat bu amoon programme mais programme boobu mu am ñépp xam na ni mun na ko doxal parce que ñoom ñooy exécutif bi ñoom ñooy exécutif bi ñoom ñoo mën a doxal réew mi ñoom ñoo la ngay nekk seen loxo tey jii bu doon benn opposant moo ñëw yëkkat ab référentiel naan la fii laa la jëmee réew mi doo ko mën a gëm parce que ñoom joxuñu leen réew mi ban koy doxal même bu nu amoon même nu amoon lii di majorité majorité boobu nan lañ koy doxalee léegi sénégale yi ñoom li ñuy comprendre mooy ñii jox nañ leen réew mi mars mais na lañ joxaat doole benn loolooy enjeu bu njëkk bi enjeu bi mooy fexe ba sénégalais yi jug jël élection yi def ko seen yëfu bopp loolu tax Sonko boo xoolee pôle bu mu dem bu waxee seen programme ba pare dina cokkaas opposition bi wax aussi fi ñu jëlee réew mi looloo indi mbir mbiri mille milliards yi looloo indi mbir mbiri Amadou Ba looloo indi mbir mbiri Tahirou Sarr looloo indi mbir mbiri Barthélemy Diaz boo xoolee pôle bu Sonko dem ci réew mi bu waxee soxlaam ba pare dina tër benn opposant ci penc mi waas ko ba sénégalais yëpp génn ci moom maanaam day sempi gars yi sànni fale samp boppam maanaam gars yi sonko sonko lu yëpp da leen di wan naan ñoom duñu sonko maanaam du ñu man duma man ñoom wax leen lu tax man du ma Macky lu tax du ma Amadou Ba lu tax du ma Tahirou Sarr lu tax du ma Barthélémy Dias ñooñu ñëpp nag daanu ci piège u Ousmane Sonko piège bi mooy bi mu cokkaasee Macky sàll Macky Sall au lieu mu noppi Macky dafa génn di ko tontu ci ab lettre ci koo xam ne yor nga réew mi 12 ans yàq fi lu ne tëj fi lu ne sàcc fi lu ne rey fi lu ne xëy bugg a judduwaat mel ne beneen Macky Sall les Sénégalais loolu du dugg seen bopp. moo tax dafa pousser Macky Sall ci ay erreur moom Sonko ci la Macky Sall comme Macky Sall boroom jikko la ci nga gis ay appel vidéo ci loo xam ne da ko doon manqueel maanaam loo xam ne day manqueel Macky gis Macky Sall ci ay ojo gis Macky Sall miy bind maanaam doye di quoi foofu la mag pour man Sonko écraser le président de la République Macky mu ñëw xëcc Amadou Ba jaar ak moom foofu parce que atte bi ngay atte Macky Sall noonu ngay atte Amadou Ba parce que mburu foofu ko fërin parce que Macky lu mu sa def de ci ànd ak Amadou Ba parce que kii moo doon Ali kii moo doon Alioune ci ñoom kon mënoo leen tàqale mu jël leen def ci benn saak bi mu jógee ci loolu xam na stratégie opposition bi parce que pour la première fois sonk di wax di tudd Barthélemy Diaz loolu ñu bari seetluwuñ ko Sonko di wax di tudd Barthélemy Diaz Barth daan na ko cokkaas mais Sonko da ko doon minimiser même bii tudd Bougane lay tudd mais fii Bougane du enjeu bi parce que du tëdd Barthélemy wax naa ak suma chronique bi passé Barthélemy ñëw bëggoon indi benn image image bi mooy Barthélemy bu cool Barthélemy bu bees bu civilisé Barthélemy tête de liste Barthélemy mais Sonko li mu wan waa sàmm sa kàddu mooy seen mbër mi matul mbër seen waaji du waaja Barthélemy daanu ci piège Sonko parce que Sonko da ko cokkaas mu fayu léegi nag bi mu ko cokkaasee mu fayu mais jikko Barthélemy Dias génn benn erreur bi mu njëkk a def mooy bi mu demee Tamba saaga booy Sonko yi beneen bi mbiri Abbas Fall attaqué nañ Abbas Abbas tontu na mais ñu gis siège Grand Yoff bi ni ni mu demee ak yi ci xew yépp mais ñu jóge ci loolu ñu gis li xew Ndar xew Mbàkke xew keneen Barthélemy ak fugg bi mu am erreur bi mu def moo ñëw assumer ne lii man maa ko def maanaam yow ñu lay jiiñ mbën dëmm ngay soccoo yeelu liir gars yi ne mais li lim lu bëggoon jaay di ko tabax di ko taqal Abass Fall nekk de du dëgg Barthélemy bii bandi bandiwul lañ fi gis ba léegi Barthélemy bu siluisewul lan fi gis ba léegi Barthélemy bu amul argument politique parce que parce que benn moment Barthélemy xol bi mooy génn alors que bu nee diw tëdd liste la nit ñi bët bi lay xoolee mooy ci kilifa la. mais kilifa du caagan ñu wax la ko rek mais danga koy wuyoo mais danga koy nuru léegi nag Sonko téye foofu foofu nag la bataille de Ndakaaru foofu la Sonko gagné parce que damay dégg maam Biram Waj di ko wax wax bu am solo mooy coalition wu opposition bi di sàmm sa kàddu di bu Amadou Ba jàmm njari mais di coalition takku ñoom ñëpp pour man danoo bokkoon benn stratégie mooy takk wallu dañuy dem xeex ci biti la mi xeexal lañ ci ndakaaru boo xoolee sàmm sa kàddu seen campagne yëpp ndakaaru la parce que enjeu bi mooy bu nu gañewoon ndakaaru loolu beneen mbir la mais erreur bi Barth def foofu munoo nekk ab tête de liste Babacar Mbengue mu nekk ci li ci liste ndakaaru bi jiite ko kenn xamu ko kenn dégg ko mais soo ko jël ab lien am Abbas boole la ak moom Abbas poussé la ba nga def ay erreur mais Sonko saisir occasion bi ñëw ndakaaru ne ne ma ñëpp wo fekki ndakaaru ñu ndekkee ji kër Barthélemy Dias mais jour boobu la Sonko récupéré ndakaaru def fi benn fan ñaari fan dem du Bari waxatun ko nga xam ne ndakaaru moom mokk na ci ay erreur yoo xam ne Sonko moo ci poussé Barthélemy Barthélemy daanu ci parce que Barthélemy dafa neex a yëngal boo nekk sa bët bi suuf a ngi ci rek mu déconné te nit ñi bëgguñu image bu mel noonu poussé ko mu dem ci may Maimouna Ndour fay def erreur mooy bis bu ñu jotee ci réew mi dinan fexe ba am première maanaam maanaam dinañ bloqué réew mi avion du naaw oto du dawati mais yow nga soxla réew mi ne damay bloqué réew mi yow jamono ji ngay wax ni damay bloqué réew mi Sonko moom yor na référentiel bi doxal réew mi te saraxole du topp néew bàyyi seet te ginaar du topp kii taxani di bàyyi kii bojj. nit ñi ne mais Barthélemy mi mi indiwul dara malgré que coow li bari na xët-xët gi bari na mais indiwul dara loolu pour man moo leen ñàkkloo ak yenn discours yu Pape Djibril Fall du wax dëgg Bougane doo comprendre Anta maanaam ñoom ñëpp ñu réer pour man ci biir campagne bi mais aussi tamit génn Déthié Fall déstabiliser leen pur jéewul le jeu pour man pur xamoon nañ fi mbir yi mu quoi moo tax sonn ñu ci parce que pur rek bu demaloon boppam pour man dina am lu ëpp sax ñetti député mais loolu moo indi tey ji Sonko nasaxal coalition boobu li wax naa leen ni mu rendee Macky rendee ko Amadou Ba mais Bart léegi mu ñëw ci Tayrou Sarr parce que Tayrou Sarr bukki bu sangoo deru bay la mooy benn waay bu ñëw gis Sonko di woote patriotisme mu woote nationalisme wax naa ci krog pour wan ko ni maa la gën a sës alors que discours nationaliste mooy discours boo xam ne ñi amul niveau ñu bari dañ koy gëm mais du discours biy doxal dara ñi koy wax teewuñ ci dara dan dañ ko dañuy ci nax nit ñi ba falu rek mais après bu ñu faloo yooyu duñ ko mën sonk jël Tahirou Sarr tër ko Tahirou Sarr def erreur politique mooy sonk da ko cokkaas mu waroon a yaru noppi continuer campagne am parce que kii rëbb jaan doo faale jiit te mbottu nawet li Serigne doon wax képp ku leen tàccoon ca tool dina booy mais Tahirou Sarr tontu tontu Sonko maanaam Tahirou Sarr bi avant Sonko di ko tudd dix la woon Sonko tudd ko mu doon cinq mais Tahirou Sarr bi mu tontoo la doon un parce que ak loo ko mën a waxal moom rek mu amul discours bu cohérent maanaam li muy wax gëm na ko mi ngi ci même ñu ci bari mu ci ànd ak moom mais moom mi ngi ci te nit ñi des fois dañuy bëgg nit koo xam ne dafa cohérent ci wàllu politique ñeme li muy wax ñeme fu mu jëm mais tontu bi mu tontu Sonko te moom li mu bëgg ci loxo Sonko la ne mooy njabootu Sonko léegi bu xoloog Sonko da koy ñàkk moo ko yóbbee lu mu am pour walla stratégie yu teg léegi nag ñeneen ñi li leen rey mooy Sonko avant mi jot réew mi nit ñi gëm nañ ko mu jot réew mi nit ñi gën ko gëm te wolof daf ne ku la jox añ maanaam ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee reer da nga koy gëm bi mu yorul dara gëmoon nañ ko mais bi mu yoree réew mi bu leen diggee dañ koy gëm mais li daanal ñenn ñi mooy ñi àndoon ak Macky Sall ay ay Abdou Karim Sall ay ñoom Moustapha Diop ay ñeneen ak ñeneen pourquoi ñoom seen discours jàllul yow mënoo yor réew mi 12 ans askan nga nga ne defaloo leen dara jariñoo leen dara ba nguuru Macky Sall daanu nga ñëw nga ni leen bu ma bu ma nekkee député yow bi ngay nekk ministre mënoo loo leen dara bi ngay nekk DG mënoo loo leen dara bi ngay yor pouvoir yëpp mënoo dara. nga dem ba ñàkk nguur ne mën nga leen dara mais askan du la woteel boobu nag le peuple a jugé nécessaire mooy ñu ne nan woteel Sonko benn pour delloo ko njukkal parce que 2019 ak léegi demul élection benn pour delloo ko njukkal mais beneen bi ci topp mooy jën ko jox légitimité parce que Sonko ci biir campagne bi li ma naan dafa jox enjeu élection yi enjeu mooy bi muy attaqué Diomaye ministre de l'intérieur pour man da ko doon def noonu pour secouer le cocotier yëngal garab gi te bi mu ko defee da ngay sentir ni dafa gën a am légitimité dañ ko jën a jox gëdd mais dañ ko gën a renouveler confiance te loolu ñu ngi ci fin campagne bi maanaam confiance boobu ci diggante boobu ak campagne bi du fi dañ léegi peuple bi nag loolu la ñu ànd ak moom ba jox ko. majorité parce que chaque étape ci campagne am même avant campagne ko day teg dara bi bi ñu demee élection présidentielle bëreet dafa woote grand théâtre natt booy yi ñu jógee grand théâtre mu woote arena natt leen bi muy dem campagne moom xam na ci li mu téye mais opposition bi bi ñuy ñëw ci campagne bi téewun ci dara erreur bi nag li ko def mooy élection yi ci biir wi mois ci benn année erreur yi ñoom Abdou mbaw def pour bëggoon a bloquer assemblée bi pour man opposition bi temps lañ soxla woon temps fekk at ñaari at état de grâce bi jeex mais ñoom dans leur tête ak seen média ak seen chroniqueurs yi danoo foogoon ni réew mi doxul Sonko ak Diomaye jubóowuñu ni ngi tardé réew mi référentiel bi amuñu projet bor yi ñuy wax génn bi mu génn wax ci budget beeg yooyu yooyu dina yàqal sonk lu bari booy gëmatuñ ko ñi ngi mbëkk gaal yi boobu ñi ngi travailler opinion bi boobu ñu ngi travailler opinion bi mais opinion bi fekk wu leen si parce que opinion bi danoo dund 12 ans ak Macky Sall mais xam fi réew mi jóge loola képp ku leen bëgg a gëmal ni ñii mun nañ defar réew mi ci cinquant ans ñoom duñ ko gëm mais comme ñii ñoo fi ne mais il faut les accompagner pour man loolu mooy réaction peuple bi mais ñee xamoon na ne mënuñu am lu bari mais danoo foog ne travail bi ñu def ci opinion bi ci demande sociale beeg loolu dina fay dara mais fayul looloo tax ma ni peuple bi ñoo gën a mûr ñun jiite loolu nag moo indi ku mel na Moustapha Diakhaté ku mel na Madiambal Diagne ak yenn chroniqueurs yi yu ma dul tudd seen tur mere peuple sénégalais maanaam ñoom yàq nañ Sonko ak Jomaay ba sonn mais teewul seen daraja mi ngi yokk parce que bu dee ni ci présidentiel cinq communes maanaam dizaine de commune lu ëpp fukki commune département la maanaam son ak Diomaye ñàkkoon nañ ko ci présidentielles yi mais bu ñëwee fii cinq bu ma jumul cinq département lan ñàkk kon Pastef dafa gën a am doole parce que fee presque dizaine de département lañ ñàkkoon ci présidentielles yi mais tey dabu nañ ko ba xam ne ci nooru Sénégal bi rek di bëj gànnaar côté Fouta yooyu ak département bi nekk ci Afrique de l'Est bi opposition bi gagné boobu rek lan perte mooy wane ni ñi seen puissance ak seen doole yokku na kon ñi leen doon yàqal ak di leen waxal mënul leen dara moo tax Moustapha Diakhaté génn saaga peuple sénégalais bi boo ma Madiambal Diagne comme intellectuel la ci ay bindam peuple bi moom maanaam xereñu Sonko ak Diomaye ak ndam li ñu am dafa jàpp ni du ñoom ñoom danoo jàpp ni peuple bu manqué la peuple bu matul la peuple bu xamul dara la peuple bu naatoo xóona ba ci yenn chroniqueur yi ngay dégg mu naan Sonko même bu leen doon saaga sax di leen xas dinañ ko woteel waxul ñu dëkk Sonko ñun ñii ay góor lan bu ñu saagoon duñ ko woteel bu ñu xasee duñ ko woteel bu ñu respecté wul duñ ko respecté mais pour pourquoi xale yi woteel ko xale yi Sénégal danoo mur de Wàdd fekk na leen fi maanaam ci di di ci diiru 30 ans def nañ fi ñetti alternance mooy wane ni peuple bu mur leen alternance ci Wade 2000 2012 ak Macky 2024 ak Diomaye loolu peuple bu mur xam lan mooy élection mais xam ay choix moo koy def kon topp ñu Sonko parce que dañ ko topp rek gëmm tëxlu lu mu def noonu la mais dañ ko topp parce que am na lu mu teg seen loxo loolu la chroniqueurs yi ñoom Madiambal Diagne ñoom kii ak yenn analyses yi di xas peuple bi naan ñoom ñoo yeewul ñoom ñoo liwul fu leen gëmale ñu jëm fa waxuñu dëgg waxuñu dëgg lii nag pour daaneel mooy li ñu war a def mooy respecter le peuple ji nga ce que le peuple veut je ji nga ab askan du nu topp jëm fenn rek nga jàpp ne ñoom ñëpp a dof maanaam li saa doon expliqué dem maa ngi koy déglu mooy foofu laa jeexale mooy tubaab bi ñëwoon Touba na ñii ñëpp mënuñu ànd dof maanaam mboole mi nekk Touba mënuñu ànd dof mais ñu topp Sonko yëpp mënuñu ànd dof te boo xoolee Pastef li ko lal ay intellectuel la ay fonctionnaire ay ñu wax ay waa diaspora bi maanaam ñi yeewu ñoo ñooy parti bi loolu tax pour man opposition bi il faut que ñu gën a defaru gën a liggéeyaat mais gën a xamaat sénégalais yi gën a jàngatal sénégalais yi bañ a jiital seen xool rek mais jiital seen xel xam ñin ko séqal peuple la boo xam ne heure bu waree taxaw day taxaw te loolu lu am solo la kon euh, di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm El Hadji du Diouf ñu ngi koy gërëm bu baax Abdou Toob ab Ablaye jàlloo ci régie bi di gërëm ñëpp di leen sant Omar bun Xataab Gueye ci kàddu gi kon beneen alxamis incha allah bu neexee suñu boroom ñu dellusiwaat